salaati julli am na nuurun azimun leer gu mag mu di ko firee ci olofal li salaati ñeel na julli nuurun azimun leer gu mag ñeel na ko ci waxinu wolof yi ni ñu koy firee mag ñi daan ko waxe mooy am na rek li salaati nuurun azimun julli am na leer gu foor goo xam ni tashruq dana ko leere quluubul musallina xooli ñay julli leer googu nag wala yanaaluhu du ko am nag illal xaashi'uuna ña dul ña am toroxlu seen yaram ak seeni xol yépp nooy dal reteex jëm ci seen jàmm yàlla gi ñu nekk gu màgg googu teewlu màggaayu borom bi moo waral ko sooba loo comme looloo am fa ida atayta kon soo dikkee yow miy julli ila salaati ba ci julli gi fa farrix na nga kon xalbaka sa xol seetal ko wecc min ad dunya ci àddina wa ma fiha ak yëpp ne ci affaire yi addina ci biir addina yooyu fàtte fàttelu ko ci sa xol wastail te nga soxla bi muraqabati ci maanaam teewlu sa màggaayu boroom foo toll loolu mooy muraqaba fuglu fugloonte garde dara bañ a dugg loo yëgul ci sa xol bi muraqabati mawlaaka alladi mi nga xam ni tusalli li wajhihi da ngay julli ngir jëmmam waataqid te fasal gëmal bu dëgër ni anna salaata na ki julli day xushoon ak toraxlu la ak nooylu wa tawaaduun ak wayaflu lillahi ñeel yàlla subhaanahu jombale naa yàlla lu yelul ci moom nag e, julli daal xushoo la tawaadu la ñeel yàlla bil qiyaami ci taxawaay bi taxawaay bi sag toraxloog sag nooylu la tekki war rukooy ak sa rukoo loolu la tekki bu sujjoodee sujjood loolu la tekki ca saasaat nga fas ni julli ba tey ni mu doonee toroxlu tey woyof woyof ci taxawaay beeg rukkoo beeg sujjood bi ndax loolu wulli sa yaram la ci kanamu borom bi kon sa toroxlu sa nooylu la aywa naka noonu julli ijlaalun ak màggal la wa taazimun te di ak fooral màggal lahoo ñeel yàlla ba tey ci takbiir yi ak sabaa bi ak zikar bi kon julli lépp luy wax ci jaamuy julli yi màggal yàlla la ijlaal ak taazim lépp luy jëf ci yaramu jaam bi julli mu di ko sëggal ak sigil ak lu ne kookoo tam day nee na euh, kon loolu toraxal toraxlu jaam bi la tekki taxaw ruko sujjóot toog sigi nee na jaam bi la tekki yaa ngi mel ni ki soldaar boo xam ni dafay def li ñuy wax maaj fu ne mu jëme fa yaram ci riyaada loolu lay mel waaye sikkar si sabaa gi njàng mi allahu akbar ji loolu màggal borom bi la moo tax julli nag benn jaamu yàlla mënul mel ni moom la azamul ibadat ndax moom bare na xol bi ak yaram bi tor toroxlu jaam bi ak yarom fi kanam boromam da ciy feeñ màggal borom bi da ak sellal ko da ciy feeñ julli moom yeneen jaamu yàlla mënu ko jot fa innaha azamul ibadat fa xaafis kon fonkal ala salaatika